Sénégalais yëpp ñu xool Gana Messere salaam bi ma dóoree suma ngaam bi ki jàppoon ci police bi dem ba xaw ma turam ku xees ki moo ma dóor fii. ñu ngi romb te naan Ahmed Cissé ngi ni ñu ngi dem nangam taan ndeyam ñoo ñu di leen yëkkati loxo naan leen macha allah ci diggi bayali Medina Baay bi la loolu xewee wax jooju waaye bunti kër imaam Cheikh leen ma defee jëf ji. <laughs> kanam gi min naa ko de. dinañ dal sa kaw ci suñ làmmeñ yoo xam ne boo ko dégloo mu nekk fett sa xol bi ci suñ xaliba yoo xam ne doo ko gis ci suñ xaatir mu damm la wàññi na maa ngi woote man waxuma de ndax manuma maa ngi woo adduna yëpp ñu xool Gana Messere ren ba déwén su tuubut lu koy dal. waaw baal ma xaq. baal ma xaq jox la mu baal ak joxoon la ko nekk ci yàlla la gaa yi jëkkalante sëñ Tuubaa jëkk ci rasulullahi sëñ Tuubaa jëkk ci alquran sëñ Tuubaa jëkk ci xabaatu rabbi wa rasula wal kitab mustaqdiyan anil xisaab bi sawab wax loolu fii la ñu rey fii suñ ko bàyyi la kenn loolu ñu ngi seet wax loolu wax loolu waxal. kanam gi miin naa ko de. waxal loolu Pape baal ñu àq. waxal na wax lu mu bind la wax waxal Pape baal ñu àq. da ngay dee ñu suul fii nag na bàyyi dal dal la jégalu woon ñu ray sax suñu bàyyi nga tool jégalu nag waxal bu la rayee dara du mujj fenn waxal defal li nga def la ñu ray la fii léegi jégalu jégulul fii bëri dara léegi ma waxuma mën naa dara waxuma danaa def dara déedéet dama ne neen leen ubbi suñ bët ndaje mu ne seetaan ca dàq ren ci xoos ñuy jégulu jégulu jégulu wala jégulu amul toogal toogal toogal toogal. dëjërle dëjërle ci sëñ bi maa ngi koy waxaat murit daal day dëjërle booy déglu ko waxut sëñ bi yora sa kaasu café bu tàng di ko déglu nee naa leen bul passé parce que boo passé doo xam la muy wax da nga naan tekk di ko déglu ba mu jël ci taag yitteem wogganti ko ba wax ba yeggal nga xëcc kafe gi góox bu dëgër na ko fuux gësam sa bopp na jërëjëf sëñ Tuubaa moo xam ne loolu jàll na doo ko dégg ah ki tee woddoom ngeer di yeeyu ñeex di booti tubaab kooku kenn du ko jëndee tawajawul <laughs> azali samadu xablu bi man wa nabi muhammadu ila siwaya tantahi dajalu wa kullu ma wala wal awjalu wofpa xabatu rabbi